salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV tey ñi ngi ak le jeune champion de l' école Lit Mor Fadam Cheikh Super euh, mu nekk xale boo xam te ne mi ngi bokk ci révélation yi nga xam te ne ñi ngi feeñ au niveau de Guédiawaye daal di bëre récemment am ndam ci nga xam te mooy Giro Seras amaat aussi combat le avril prochain digganteem ak Scorpion bu écrit Jaxaay moo tax tey ñu daal koy seet si jéem a entretien ak moom xam fan la toll ak waajtaayam ci combat boobu ñu leen wax seen liggéey rafet na di sant sama ñaari waajur bu baax a baax di sant yàlla di julli si yonente bi. waaw ah, champion bu ñu avant ñuy wax ci combat bi ñu ñëw coow ci sa dernier combat bi nga bëri ñu gis ni coow li bëri woon na ci trop quoi coow ak engouement bi yëpp lan nga ko doon dundee. waaw loolu moom damay sant yàlla rek ndax dama jël giro mu njëkk a bëre ma jël ko dégg naa lu nekk dafa am gàllaaj dafa mën a bëre. mais teewul man ma gëm li ma gëm ndax dama ne man champion laa bëgg a nekk te bala ngaa nekk ndaanaan faa faaw nga daan ndaanaan ku bëgg a nekk ndaanaan faaw nga daan ndaanaan waaw mais dama jël lépp rek bàyyi ko ci loxo yàlla nekk samay entraînement ma bëree ba pare dégg naa lu nekk yokkal entraînement yi defal nii mais man xam naa li ma liggéey amaan dañoo jàpp ne ki ma doon bëreel cuune la ki ma doon bëreel du cuune ndax boobu deuxième defar tam xaw ma premier defar waaw may sant yàlla rek waaw bu baax a baax. ñu gis également ci sa wàllu préparation nga daal di jël volume coow li bëri ñun bëri naan Cheikh poids bi baaxul ci moom li mu li mu poids bi mu yor ni aussi est-ce que dina moom yaramam loolu yëpp coow li bëri woon ci trop côté boobu tamit nan nga doon dundee loolu. waaw parce que combat boobu seen normal ma jël volume ndax Giro dafa nekk poids léger waroon naa wàññeeku sax mais dama entraîné rek tamit xam nga sama soxna di ma toppatoo amaana moo waral jeexuma mais gis nga combat bi nii. ma si teg ay coono yu mé daj si ay coono yu métti ay quatre séances laay entraîné billaahi wallaahi taala moo tax gisoo dama entraîné ba jeex dama entraîné ba jeex mais car macha allah wax li ma liggéey xam naa ko te li ma liggéey bu la 21 wee dina xam ne roy du ndróog pire kuy tëdd di nelaw ak kuy yeewu dem liggéey mun mënuñoo nekk benn sax man ay xale ñoo ma yónni yaakamti ma Ah, ñu gis aussi ci biir combat bi anam bi nga bëri ak Giro Seras mu doon mun naa ni adversaire bi jox nga ko cër mel ni stratégie nga nga nga bëri ak moom loolu luñ la la wala sa xelu bopp nga andi. non kenn waxuma ko dama gis Giro Seras nangul bëre su ma ñëwee pour xeex ak moom sax du xeex day jéem a xeex xeexu bandi kon daw cokkaas ma taxaw man it ma tee rek jël sama temps parce bi première jàppante muñ jàppante xam na ne kii munuma kaa daan si bëre te man xam naa ne bu ma ko jàppee lamb jeex waaw ndax xam naa ne maa ko daax bëre fop waaw comprendre moo tax ma naxanteeg moom benn instant maa ngi laaw sax pour mu jàpp ne kii mënul xeex pour mu bëgg mu ñëw jël si ma pour mu mën a ñëwee jël si ma mën a jàppanteeg moom mais defu ko waaw ci la moment nag ma demee ba xam ne temps bi li si ma kii faa ma jéem ko accéléré su ma jàppanteeg moom rek day jéem a dem si wotu saaku yi mais bi mu koy daan boo xoolee si côté saaku yi laa ko daanee di santaat yàlla bu baax rek waaw xam ne man mënuma dara yàlla moo may ndam ko sant bu baax a baax. nga am ndam ci kawam daal di ñëw jël ki nga xamante ne mooy scorpion jël combat boobu. waa escorpion mun naa ne la bi may bi muy bëree bëreewu ma sax mais xam nga kon li ma la waxoon sànq dama bëgg a egg fu mbëri yi mag yi egg man ma dama si am wàll fi mbëri yi egg laa bëgg a egg boo gisee ma jël escorpion jéem ma kaa sax xam dañ ma ko wax rek ñu ne mbër bu mag la carrément ma leen aja boo gisee ma jël ko nag dama bëgg a nekk ndaanaan moo tax ma jël ko bëgg a wane sama bopp moo waral ma jël ko waaw te bu neexee yàlla suñu borom le 21 nañ gis beneen Cheikh Super jamono si kàttanu yàlla suñu borom. lamb jooju nan nga koy waajalee si wàllu préparation. waaw lamb ji depuis deux mois boo xoolee maa ngi koy waaw deux mois presque maa ngi koy waajal maa ngi nekk samay entraînement xam nga sama gars yi ànd ak man di ma jàppale guddi ak bëccëg xam nga nekk samay entraînement nekk samay contact waaw di liggéey rek di xaar le jour yi nga xamante ne moom laa liggéey bu arbitre sifflé dinaa ko wan bu neex yàlla ndax man xale laa. waaw. adversaire bi est-ce que xam nga ko bu baax. non xaw ma ko xaw ma ko ndax wax fekkee dëgg rek xaw ko mais nee na ma mbër bu mag la ndax ku bëreeg ay pamorloo kon kooku mbër bu mag la mujjee daan naxa naxa kon kooku mbër bu mag la xam naa ne nag te man ñaan naa yàlla bëreeg ay ñoom pamorloo kon ku bëreeg pamorloo sawar naa pour bëreeg yow. xamaa ne moo ma jiitu si làmb moo tax ma bëgg jël ko nag yàlla may ma si ndam ak jàmm ak salaam loolu laay liggéey te moom laa gëm te incha allah mooy am tey su ma laajoon Cheikh ñan la bokkal génération ñan nga duggandul ci làmb lan nga ñu wax. man de ñu bokkal génération si Mbapat wala si arène. arène arène boo xoolee ñi ma bokkal génération man ñi ma bokkal génération ñëpp ma mag mais ñëpp yàlla def na bàyyi naa leen fi nag sant yàlla bu baax ndax benn combat laa bëri huitième combat sama huit combat yi des yëpp spécial laay bëri loolu dama siy sant yàlla rek waaw def combat bi yàlla yàlla may ma gën a combat di sant suñu borom. gis aussi sa wàllu préparation ngay liggéey ku ci mel ni ñoom Alioune Seye numéro 2 ba tey suba sax bi ñu demee jëleen fekk nañ dafa ban relation nga am ak ñooñu. waaw ñooñu mafia Kara bi la Kara dafa baax nekk suñu papa ju baax ak aas chaque jour ñooñu yóbbu dindee ñuy entraîné Alioune Seye kooku sama papa la dafa jël boo yëpp yemale leen amul kenn koo xam ne tey jii di nga gis Alioune Seye lu la métti déedéet dafa jël ñëpp yemale leen jiite ñu jiite boo xamante ne mën du ñu defal loolu loolu dama ciy sant yàlla man fajar gi du ma xaar sax ku may woo man maa def sama réveil bopp bala ñu maa woo man maa ñëw yenn saa bu ñu may woo day fekk may nekk si yoon bi di ñëw waaw parce que loolu boo gisee may yeew di dem dama bëgg am ndam bëgg ñoom ñu xam ne tey ji man maa ngi liggéey te ñoom xam nañ li may daj bu baax ndax yow sànq gis nga bi ñu may bi ñuy déggante sax Père Gomez laa jugee te may juge din ya ñëw nelaw dem si Père Gomez ay 3 heures laa egg waaw cardio lépp waaw car allah moom it sama papa bu baax la du ma ne sama papa sax sama maam la ku baax la di ma jàppale soxlawul sama dara di ma jàppale bu baax a baax. am na solo bu loolu weesoo am lom teen mënoo cee ñàkk sànni dara muy Lac de Guiers 2 Boy Niang presque mbër géejaay yëpp wax nañ ci yow lan nga gis ci combat boobu. waaw combat boobu li ma si gis may ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy maye ndam mu may ndam Lac de Guiers 2 jël bu gaaw combat bi yàlla na gën a yomb si ay combat am ndax man Boy Niang moom dama rêvé bëreeg moom. billaahi wallaahi taala depuis bi mu daanee saako joor ba léegi dama rêvé pour bëreek moom. boobu noo toll bi muy daan boobu booy laa booy laa bëreeguma arène sax billaahi affaire bi metti ma bu ñu ko tegee tele sax damay am lu ma metti suñu tegee combat bi nii damay zappe tele bi damaa amoon lu ma metti si combat bi ndax saako joor dafa nekk ku baax moom it di ko nuyu di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal tan mais ñoom ñaar ci diggante seen diggante ñoom ñaar bu ñu xeexee wala ñu bëree lan nga gis seen diggante. Boy Niang xeexu ragal lay xeex day yooru te Lac de xeexam dafa dëggu bu xeexee ak Lac de Guiers moom mooy juum mais Lac de Guiers du juum te bu neexee yàlla Lac de Guiers dina ko duma dina ko daan ci kàttanu yàlla suñu borom incha allah. su ma la déggee xeex bu baaxul ci Boy Niang. non non Lac da Guiers daka xeex Boy Niang Boy Niang xeexu ragal lay xeex Lac de xeexam dafa assuré bu neexee yàlla suñu borom Lac de Guiers yàlla da koy may ndam ndax xolam dafa rafet. mais gis ni ñoom ñaar dañoo nduroo anam bi ñu bëre ñu taxaw di xaar est-ce que combat bi gëm na ko mën a jëli. Lac de Guiers incha allah moom mooy kiy bëre jour combat ba boo ñaar du diriger Lac de Guiers mooy dóor mooy bëre mooy daan si kàttanu yàlla suñu borom waaw. ñu faral di dégg da observateur yu bëri rawatina waa Pikine ñu ni bu demee ci côté bëree bi Lutte Pire Boy Niang moo dàq bëree looy tontu ci loolu. waaw xam nga gars yi dañuy jaawale ah, bëre jàpp fii jàpp fii ak bëre boo xam ne dafa assuré xam nga kan moo mun bëre kii bëre bëre bu assuré kookoo mun bëre mais am na ñoo xam ne dañuy nekk stade di bëre bëre boo xam ne bëre musical la mooy dugg fii génn fii action yi du egg loolu la ñuy jaawale mun bëre buñ gisee loolu la kii daa mën bëre bëre moom mooy ki nga xam ne dafa assuré bëre bu gisee buntu action bu ko defee day daan te kenn bu egg si moom Lac de Guiers mbër boobu la Lac su ma doon wax dama naan géejawaay ñi ko dàq bëri bëriwul da nga leen di compter. mbër bu Boy Niang dàq ko bëri. non moo dàq bëri Boy Niang. Boy Niang bëri tapet lay bu jour boobaa lay xam ne Lac de Guiers 2 moo ko mun noo incha allah si yàlla suñu borom. am na solo Cheikh ñu bàyyil rek donc nga tàggatoo lan ngay mujjee sa kàddu gu mujj. waaw sama mooy. waaw moom mooy damay ñi nga xam ne tey dañuy jàpp sama combat ndax bi mooy sama premier grand combat daa am ñoo xam ne dañu taxaw jàppale ma xam nga ku si mel ni sama papa Bëri Sey sama papa Bëri daf may jàppale bu baax a baax di ko woo si combat bi na ko mu jàpp si bu baax a baax xam nga di nuyu ay soxnaam bu baax a baax di ko jiitalee si sama yaay tata Marème maa ngi koy nuyu moom it bu baax dafay dafa may jàppale daf may démb rek fa jóge jógee may jàppale bu baax a baax ku si mel ni papa papa Abdoulaye Sall moom it daf may jàppale bu baax a baax père Ousmane Kane dafay jàpp si combat yi Ana Gomis moom it daf siy jàpp borom baax la E yaa may dégg e xam nga ñooñu dañ may jàppale bu baax a baax ku si mel ni Baye Samba Baye Samba daf siy jàpp bu baax a baax Baye Samba moo yor fii wari bi xam nga moom daf siy jàpp bu baax a baax ay e ñoom Sidi Baara cosmétique Sidi Baara moom it dafay jàpp sama combat bu baax a baax borom baax la waa ñaari boulangerie ñoom Papa Laay ñoom Pam Mbuub Pam Mbuub tamit dafay jàppale bu baax a baax Pam Mbuub maa ngi koy moom day jàpp si combat bi di ko wax tamit combat mu gën see jàpp xam nga waaw Baara bu la job moom it nee dina ma jinal ay billets yu bari xam nga mu dina ma jinal ay billets yu bari diko wo ne ko mu ñew japp si bu baax baax ndax man doomu way la mu ñew jàppale ma sa boy dañuy bëgg dem stade duñu am luñu ñu stade Pala Pala Pala sambu tamit maire point 1 fan résidence ma ngi koy wo mu ñew jàppale ma si combat bi bu baax a baax baax waaw mom dama ko soxla si combat bi xam nga wa fan ok ñepp dañu bëgg ñew ci si combat bi wa gol Tapée maa ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax laay goote ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si combat bi xam nga ay ñoom na siis xam nga ma leen di woo ñu ñëw jàpp si combat bu baax a baax xam nga Samba tamit maa ngi koy woowaat naa ñëw jàpp si combat bi xam nga amay dégg ñoom ñëpp waaw di woo waa géejawaay ñëpp géejawaay bàyyiwuma kenn waa jaxaay waa jamono xam nga waa notaire xam waa baylaay waa marché bees xam nga ak lu géejawaay ak mbër yu mag yi di leen wax ne sama open press bi di la maa ngi woo ñëpp mbër yu mag yëpp Sa Thiès Balla Gaye Lac de Guiers 2 Alioune Seye 2 bàyyiwuma kenn Elton Abdou Diouf bàyyiwuma kenn mbër yu mag yëpp su ma limee damay juum xam nga képp ku dëkk géejawaay maa ngi lay nuyoo xam nga ma maa ngi lay woo si combat bi di woo waa daaru daaru bi nga xam ne fi laa dëkk waa jaxa jaxaay ku si mel ni di ko jiitalee si kii nii ñoom Pape Diso xam ñoom Pape ñoom Henri maa ngi leen di woo ñëw jàpp si combat bu baax baax ñoom Boobe Boobe moo jiitee euh, mafia jaxaay bi Agico yi ñoom maa ngi leen di woo bu baax a baax Boobe maa ngi leen di woo le 21 ngeen ñëw soutenir ma open presse bi tamit mercredi la. sama gars yi tamit ñi nga xam ne chaque jour ko jëfee boo leen ñëwee fekk leen sama kër ku si mel ni ñoom Modou gisee ñoom Ngañ xam nga ñoom Baata aw ma fayam mère Sonko yaayam aw ma fayam Seexu day sonn sama combat. seexu bu waay rek sonn sama combat billaay walaay taalaay aw ma fayam xam nga ñoom ngañ xam nga di nuyu sama soxna bu baax a baax aw ma fayam mu ngi may jàppale bu baax a baax sama sama yaay ma fayam sama yaay dama koy ñaanal gudd fan sama maam sama papa Pam Ndiaye tamit fàttewu ma ko dafa may jàppale sa combat moo may yóbbu góoti maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga di nuyu ay soxnaam su mel ne ñaañ ak xarit maa ngi leen di nuyu di nuyu sama papa Tafa Ndiaye ak sama papa Prési ñu koy wax Pathé Sylla Tafa Ndiaye ak Pathé Sylla ñooñu samay papa ñooñu samay papa ndax sama yaay dafa jël teg ma seen loxo ñooñu samay papa lañ ñoo may jàppale si lu bëree bëri xam nga di nuyu samay entraîneur si mel ni père Ngay Lum ah, père Maawo per Saar Saari xam nga ah, père Gora Fall Amady xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu maa ngi gis ni ñooy may taxawoo bu baax a baax dañoo jël boo yëpp yemale leen. xam nga comme may kontaan si ñoom bu baax a baax tamit xam nga di bëggeewaat sama gaay rek ne ku ma limu lekk nga comprendre ma sama géwél Ablaye sàll sa combat musuma jël xaalis jox ko Ablaye sàll moom moo may tëgal sa combat su ma naree jël dërëm di ko jox sa danaa ma soxloo ma sa dërëm moom mooy jël xaalisam di ma ko jox depuis man ak moom depuis mbapat la mbapat mu may tëgal ma dem ba arène mu may tëggal kon kooku aw ma fayam Ablaye Sall barki Seydina Mohamed aw ma fayam maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama mag ki nga xam ne moo tax ma dugg si làmb wextan aw ma fayam wextan ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan aw ma seen fay waa terrain basket tamit aw ma seen fay Pàkk Baye Moussa Baye Laay Gétte ba xam nga waa essence Touré ñoom ñëpp maa ngi leen di woo si combat waa rond-point Mor Fadam bàyyiwuma kenn ku ma limul lekk nga comprendre waa fan ok tamit maa ngi leen woo si combat bi waa Fan ok ndax dañoo nar a mobiliser bu rëy waa Fan ok waa Gueule Tapée xam nga ku mel ni ñoom Pabi ñoom Biram xam nga ak sama yaay yile maa ngi leen di woo ñoom Assane maa ngi leen di woo ñu mobiliser gars yi ñëw combat bi jàppale ma ndax bii mooy sama premier grand combat Alioune Seye maa ngi lay gërëm di la sant di wax ne li ñuy teg ñu ngi koy gis ndax bu ñu ñëwee suñu école di entraînement carrément sala ñun dañuy kontaan suñu bopp kon Alioune Seye aw ma sa fay xam nga xam nga Cheikh Mara tamit maa ngi koy sant bu baax daf may jàppale sa combat daf may jàppale bu baax a baax Cheikh Mara aw ma fayam waa Hongrie tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen woo ci combat bi ñoom ñëpp ñoo jàppale ma xam ne man seen doom laa waa Pamecas ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm daal waaw di leen wax la 21 moom du ay fo waaw am na solo am na solo bokkentoon na di champion baa ngi noonu moom tey lañ seet woon waxtaan ak moom muy Cheikh Super jamono bu école Lille Mor ma euh, tuddee ko le jeune champion de l' école Lille parce que xale la boo xam te bu mu diggee ci làmb yàggul mais mi ngi bay waaram euh, di def li nga xam te li ko war su ñëwee dina état macha dina andi fayda mu am bis le avril prochain ñu daal digmal bés boobu rek mu ñëwoon tey pour waajal ko daal def sorti wax a waaw xaadim tamit dama koy woo quoi xaadim mu Kër Massar xaadim Meng dama koy woo si combat bi mu bëgg mu jàpp si bu baax a baax ndax moom borom baax la dama mu jàpp si bu baax a baax ndax combat bi xam nga dama bëgg mobiliser loo xam ne bu ma ko yóbbee esaat ñëpp dinañ jommi xaadim maa ngi koy woowaat moom it mu jàpp si combat bi bu baax a baax maa ngi jégalu Guédiawaye Infos tamit seen liggéey rafet na biir Guédiawaye parce que Seydina Mohamed ñun amuñu woon lii boo leen xoolee yéen bi ngeen fi ñëwee si la jàmm commencé am Guédiawaye ay mafia kara yëpp bi mu commencé am Guédiawaye info moo ñëw moo waral lii am fi yéen ay borom baax ngeen maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw mi ngi noonu kàddu yu rafet na di leen sant di leen gërëm rek du ma faat aussi les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV ku ci mel ni Adama Ndiaye grand alam bu Espagne bu grand Baye Góor bu Espagne Boubacara bu France aussi Malé Sané ñu leen sant di leen gërëm du ma faat aussi suma technicien Lenko l'incontournable Beka Koundoul merci.